mbokk internet bprd point com ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jaajëfal uh, te indiwaatal leen seen beneen numéro analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk di leen analyser li gën a fës ci réewum Sénégal ak li ko wër tey nag dañoo choqué wu ndax dañoo jot ci benn vidéo boo xamante ni daanaka ñu ci bari gis nañ ko ci réseau sociaux yi mais vidéo bi dafa am origine laataa muy tasaaroo ci réseaux sociaux yi muy ab femme boo xamante ni ñu ngi koy gis muy violenter femme de ménage am di ko dóor ba koy màtt ci bakkan laata booba déglu woon nañu li nga xamante ni moom moo di émission bu tës tës émission bi am ci fajar gi euh, borom këram moo dikkoon woote ba mu wootee di wax Mantoulaye naan ko dama am jabar te dama ko ragal ndax sama jabar dafa nekk femme boo xamante ni dafa xaw a soxor dafa may dóor di ma def lépp d'ailleurs ni may waxee yéen nii sax daal di nay déboîté li nga xamante ni moom moo di sama loxo bi ñenn ñu doon reetaan ñenn ñu ne naan anu góor nañ lay dikkee naan damaa ragal sama jabar anu góor nañ lay dikkee di dénoncer alors que mu war a mën a fajal boppam ndax euh, benn baat ci kër euh, góor moom moo koy yor góor naka la ko jigéen di ëppee doole ba di ko dóor ba di ko def yenn yi question bi nag ñëpp a ngi ko doon posé wu di ko wax waaye ba mu poursuivre li nga xamante ni moom moo di histoire bi dani dafa am benn bon bu nekk ci kër gi bon bi de temps en temps day faral di bàccal xale donte sax bañ koy jël loolu binduñu ko woon ci li nga xamante ni moom moo leen lii woon muy benn contrat verbal nee nañu bon bi bu mu xëyee tey nii dafay fóotal gone yi ci la soxnaam daal di jël ay yére boole ko ci fóot mi ni ko am fóotaale ko euh, gone gi ba mu demee ba gis ni fóot mi dog na ci la jël li nga xamante ni moom moo di yére soxna si mu daal di koy teg euh, ci chambre bi ni suba incha allah ma daal di koy bàccal ndax fóon euh, mi dog na ba noppi jabar ji ba mu fekk mu daal di jël tegee ko de côté ci la ko daal di attaqué ni ko ana lan moo tax ma jox la sama yére ni la nga fóot ko nga lànk bañ fóotoo ko soxna si daal ni ko man de ndox mi dafa dog moom moo tax di lu ma yére yi daal di koy dugal ci ndox mi mais suba dinaa la ko fóotal d'après ki nga xamante ni moom mooy borom këru soxna si ci kàddu yooyu la ko songee di ko dóor ba di ko màtt euh, ci bakkan ñu gis image yi nag image yi xaw a nekk euh, vidéo bu choquante sénégalais yëpp di ci wax ñu gis femme bi yéeg ci kaw xale bi di ko dóor di ko màtt di fattu noyam bi xale bi di wiccaxu ngir mën a sauver wu ci loxol ndaw soose vidéo bi ba mu tasaaroowee réaction yi bari na ñu gis ni nag borom këram tamit ñenn ñi dund nañ ko baaraamu tuuma ndax nee nañu li nga xamante ni moom la doon def muy téye téléphone am di vidéo scène bi scène bi mat presque 30 secondes ak lu ko topp moment boobee xale bi mënoon na cee ñàkk bakkanam pourquoi pas mu daldi woon ko sauver ñeneen ñi nag nee nañu dañ ko wara a poursuivre pour non assistance à une personne en danger waaye moom euh, version bi mu joxee ci li tax àttewul woon xale bi moment bi nga xamante ne ci la jëlee téléphone doon filmer mooy que ñu soxnaam yàgg naa def lu ni mel waaye heure bu ko waxee rek kenn du ko gëm wala dañuy jëlaat faute bi di ko sotti ci kaw à chaque fois mu koy songu xeex wala muy def yeneen ak yeneen yu nu mel amul kenn koo xamante ne da koy gëm ndax nee na borom ki nga xamante ni moo di soxnaam day faral saa su nekk rek di ko jiitu ci bërëb bi mu war a boolee di fa wax loo xamante ni day yàq daram moo tax cette fois yi mu xam ne li preuve la mu daal di profité wu jël téléphone bi euh, def li nga xamante ni moom moo di enregistrement bi téye ko au cas mu soxla li nga xamante ni moom moo di preuve mu daal di koy fësal xam na si arrêté wul benn yoon comportement bi mu yor nekk na koo xamante ni ànd na xadar te saa su nekk mi ngi def loo xamante ni kër gi day riir ci la jëlee décision daal di dem ca diwaanu tës boole ko fa euh, vidéo bi àgg na ci loxol takk der yi ñu daal di jël soxna si arrêté ko démb ci àllarba bi lañ ko waroon a jugé mais dañ ko daal di renvoyé waat version yi bari na version borom këram la ñu déggagum ak li nga xamante ni moom mooy vidéo bi firndeer nii li ñu toppee ndaw si moom moo ko def waaye ndaw si amaguñu li nga xamante ni moom moo di version des feew moom nag mënul wax ndax mu ngi ci loxol yoon waaye ki nga xamante ni moom moo di nijaayam bokk ak yaayam ndey baay moo yëkkati ay kàddoom euh, daal di def communique ci euh, site bu Seneweb la mu ca wax nag du lenn lu dul borom kër gi dafa dëpp situation bi dafa dem ba bëggatul soxna si bëgg tàkkalikoo moom te xamul fu mu koy jaarale mu daal di naa ko jaxase ak àdduna fexe ba yoon daal di koy teg loxo ci la ko jaxasee ak bon bi di ko yëgal ne bu la soxna si santati dara ba nga def ko bu la nee yëkkatil bant bale bul ko def bu la nee defal lii bul ko def lu mu la santati bul ko faale jël bon bi daal di koy dooleel ci kër gi daal di wàññi doole ki nga xamante ni moom moo di soxna si bon bi tamit nag def li nga xamante ni moom lañ ko wax dëkkee di néewal doole soxna si nga xamante ni moom mooy sëy ci kër gi euh, nijaayam bi nee na du benn yoon du ñaari yoon mu dem seen kër di arrangé bu demee fekk euh, jarbaatam bi am ay trace ci rab yu bari traces yoo xamante ni day firndeel ne borom këram da ko doon dóor et tout ça dëgg la nag cautionné wul li nga xamante ni moo nekk ci vidéo bi violence bi nga xamante ni euh, gis nañ ko mu koy violenté euh, ki nga xamante ni moom moo di domestique bi waaye nee na mbir mi dañ koo sàcc te bis bu ñu mayee soxna si mu wax yuuxu dina jub fuñ ko foogewul woon pour le moment nag borom këram mën naa jubilé ndax li mu yàgg bëgg du lenn lu dul tàkkali koog ndaw si ci anam boo xamante ni moo gën a ñaaw yéene ko prison ndax dafa dem ba mënatul dëkk ak moom waaye bu boobaa mënoon na ko fase mu dellu ci ay bokkam mu moo gën li wértu woon mooy daal mbir maa ngi noonee waaye li ci gën a choqué wu ki nga xamante ni moom moo ci gën a nekk victime du kenn ku dul femme de ménage bi ndax moom moo naroon a ñàkk bakkanam ci anam yoo xamante ni ñaaw na lool. mbokk yi fi la ñu fas yéene yem ak yéen ci seen émission bu analyse jox leen dëgg-dëgg ba beneen yoon incha allah.